justice bi ñu ne ubbi na ay enquête mu dem ba jusqu'au buub ba mu leeral ko et ñi ci gaañu aussi ñu ngi leen di mastawu et aussi di dénoncer ces ces exactions yooyu nga xam ne force de l'ordre yi ñu ngi koy exercer ci ay manifestants euh, conférence de presse bi nag ñoo ko woote waat ndax bi ñuy lancé euh, ay fan yi ci ginnaaw plateforme bi aar suñu élection euh, nee nañu leen woon ci plan d'action bi ñu jëm dañu leen woowaat ngir gën leen ci amal ay leeral le jour boobu waxoon nañ leen ne dinañu def ab marche pacifique marche silencieuse euh, suba et que doxe woon nañu demande lettre d'information adressé nañ ko autorité yi euh, comme régime bi ni ngeen ko xamee ci Sénégal régime déclaratif la donc da ngay informer autorité bi euh, ñun informé nañu ko ba fii ñuy wax yéen jotaguñu benn notification bu jógee ci autorité bi wax ñu ne ñu seen manifestation bi lankal nañ ko wala dinañu ko encadrer donc ñun dañuy rester ci logique bu ne dañuy. wëyal suñu marche silencieuse te it di ci woo sénégalais yëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu benn boor ñu ci woo bépp bépp sénégalais ñu mobiliser wu. marche boobu nag li ko tax mooy bañ lànk ñu prolonger mandat Macky beneen point bi mooy élection yi date bi ñu ko jàppoon muy le 25 février ñu amal élection yi bés boobee loolu mooy marche bi lan moo ko tax a jóg. encore di fàttali tamit ne plateforme diggante bi ñu ko lancé ak léegi jot nañu ay membres yu baree baree baree bari yoo xam ne ñëw nañu ngir wane seen euh, adhésion ci biir plateforme bi euh, bu ngeen déggoo sànq doyen euh, Guèye ni mu expliquer activité wala ba profil yi fi toog ci biir table yi ngeen war a xam ne kon ñi bokk ci plateforme moom bari nañu lool centrale syndicale yi mouvement citoyen yi ñëpp ñëpp bépp secteur mu ngi fii te kenn ku ci nekk ci secteur bi nga nekk ah, ci ay ci ay revendication xam nañ la ci noo koy mun a defee ci ci ci ay ci ay xeexal loo xamante ne bii lu jëm réew mi kanam la am na taxawaay bu am solo loolu ba tax na ci biir plateforme bi doole yooyu yëpp la ñu boole bu ñu boolee doole yooyu yëpp mu ñuy gën a rendre fort et que jàpp nañu ne fi ñu jëm ci xeex bi parce que xeex la il faut l'appeler comme ça ah, dinañu ci am ndam et que citoyens sénégalais yi encore une nouvelle fois ñoom ñoo ci mun a taxaw ñoom ñoo ci gën a mën a jàpp parce que lii ay plan d'action la waaye mobilisation bi elle est importante et encore une fois ñu ngi réitérer cet appel là euh, que citoyen sénégal yëpp fépp fu ñu mun ci nekk ñu mobiliser wu suba ci marché bi pour fàttali ne itinéraire bu marché bi euh, rond-point G2 la tàmbalee war terminer école normale supérieure ñu koy wax léegi FASTEF jërë ngeen jëf. waaye dama bëgg a préciser ni su may jël kàddu fii dama koy jël ci turu. ay syndicat jàngalekat yu bare yoo xam ni dinaa ci cité SAEPS te suñu naatangoo Alaaji Malick Youm dirigé ko CUSEMS A di syndicat boo xam ni ku ñuy wax dàmboj ñëpp xam ko moom moo ko dirigé SEPT mooy enseignement technique et formation professionnelle suñu camarade Amar Kane jiite ko SEPI di syndicat boo xam ne bii suñu camarade tàmba toog fii ci ginnaaw moom moo ko jiite. US suñu camarade Abdourahmane kan jiite ko CEDEF suñu camarade Mansour Ndiaye jiite ko ODES suñu camarade Wan Ibrahima jiite ko ak yeneeni syndicat damay wax yitam ni tey ji ci suba. dañu fi daje ak yeneeni syndicats yoo xam ne dañu nekk ci yeneeni secteur notamment secteur de la santé ak secteur de la téléphonie mais ñooñu tey ci suba lañuy ñuy soog a daje de sorte que comme ay syndicats la yoo xam ne dañu am base dañu leen may latitude ñu dellu waxtaan ak seen base pour am mandat ginnaaw bi nga xamee ni ñoom seen bopp nee nañu dynamique bi dañ koy rejoindre ñun nag bi ñu waxtaanee dañu ni plateforme bi nga xam ni dañ ci bokk ñu ni nañuy xàccee xàcceendoo di dóorandoo ñun ñi nekk ci wàllu éducation dafa am loo xam ni loolu lañuy ñuy ci xeex bi loolu nag nii la tëddee jàpp nañ ni pour exiger gouvernement bi mu respecter constitution bi respecter calendrier républicain élection yi dat bañ ko jàppoon ñu tenir ko bàyyi jàngalekat yi ak élèves yi mais également citoyens yi nga xam ni dañ leen jàpp yore leen ci commissariat yi wala ñu tëj leen ci kaso yi daañu observer plan d'action bi nga xam ni nii la tëddee talaata fukki fan ak ñaar daañu def débrayage ci école yépp fépp ci réew ba pare ñoo wax suñu ñoñ yi école bu nekk nañ fa organiser assemblée générale ci ngoon dañuy participer ci marche bi nga xam ni dina am fii ci Ndakaaru Njaay dañ koy doore ci rond point Jet d'eau di ko terminer ci buntu Fastef mercredi 13 février 2024 dañuy débrayer à partir de 10 donc loolu mooy plan d'action bi nga xam ne ñun syndicat jàngalekat yi en tout cas mooy nekk suñu partition boo xam ni dañ koy jouer ci mobilisation ci synergie d'action bi nga xam ni waa plateforme aar suñu élection moom la ñu dérouler pour cette semaine là en attendant que semaine bële di ñëw ak suñu mbokk syndicat yooyu yëpp nga xam ni nee nañu leen daje nañu tey ñu mën a lënkaloo amplifier mobilisation syndicat yooyu SAMES bokk na ci syndicat yooyu am na association de syndicats de la santé yoo xam ni si la bokk am na ay syndicats du transport am na des syndicats donc du nettoiement yoo xam ni si lañu bokk ñi ngi sant ñëpp ligue bi tàmbali ci jaale senegal yi ci ñu faatu te loolu mënoon na ñàkk bu ñu toppoon kàddu yi kilifa yëpp yëkkati woon te wax nii bu kilifa weddi waxam gannaaw bi mu weddee waxam nag liñ doon ragal am na mooy ay bakkan rot na di ay bakkanu ndaw ñu ngi jaale seeni mbokk di lañ ñaanal ñi ngi rafet it mbooleem kilifay diine moo xam ci jàkka yi ak ci jàngu yi nga xam ne juma ji weesu ak dimanche dañoo jagleel seeni xutba seeni njàngale ci naqarlu li ñuy naqarlu ñun ndax damaa wax ni bu doon nguur gu ñuy donnante dong la ci réew mi am na di ko gën a yàlloo ñu dul ñenn kon bu ay nit di falu di folleeku dafa am luñ dëppoo liñ dëppoo nag ku ko bëgg a violé kooku yaa tooñ ñëpp yaa tooñ askan bi moo tax na askan wi yépp génn dégg nañ kàddu kilifa yi kilifa yi diine yi kilifa yi aada yi ñépp ñi ngi yëkkati seen kàddu di wax dëgg googu ne gën a jug dooleel dëgg gi jóge bitim réew nekkoon ci biir réew mi ne lii xew ànduñu ci d'accorduñ ci ndax bu ñëpp génnee njëriñ li mooy kenn du mën a fitnaal ndaw ñi ndax gone yi kat ku leen fitnaal ñu delloo la ko xeex bi tàmbali rayante am bu ñëpp génnee nag mbooloo mi bari li ñuy obligé def rek mooy encadré kenn du fitnal kenn kenn du rey kenn ndax ñun woote wu ñu yàq woote wu ñu yàq bëgguñu dara yàqu ndax liñ fi tabax suñu alal lañ ko tabaxee amul benn alal bu nit jëlee ci poosam tabax ci réew mi lu dul alalu askan wi kon ñun askan wi bëgguñu ko yàq suñu alal ba tax na kon lii ñuy woote dañoo bëgg mu nekk doxub jàmm doxub salaam waaye na ci ñépp génn mag ndaw góor jigéen na ñépp génn ñu dox wane ni lii xew àndu bi yilimaan yi nag ak waa jàngu bi ñu ngi wéy di sàkku ci ñoom ne liñ doon def lépp nañ ko wéyal juma yi dimanche yi lépp nañ wéyal woo askan wi ci lii xew te d'accorduñ ci ñu delloo ko ba keroog ñu jël si à l'ordre constitutionnel loolu lañ sàkku di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sàkku professeur bu amee luñ koy tëjee bu amul ñu ànd ñaan waaw nañu ñaan ñaanal suñu réew yàlla def fi jàmm ñaanal suñu njiitu réew yàlla delloo si xelam ba mu xam ne li fi mu ñu bëgg a woo duñ ko fa wuyu ndax ñun jàmm lañ bëgg jàmm lañu dox waaye nag dañoo àndoon ñu ñëpp dëppoo ci sart sart boobu lañ bëgg ñu ñu respecté ko ñu ànd ñaanal ñi faatu ñi faatu ñëpp yàlla yàlla yërëm leen ay ndaw lañu yàlla nañu yeggale seen seen ndaw ci aljana ñu ànd ñëpp ñaan jàng faatax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla nangu li fi lépp